maaleykum amis chers internautes de Diaspora 221 ñu amati mbégte ak contentement bu rëy rëy toog jàkkaarloo ak yéen yéen ñi nga xam ne yéen a safoo Diaspora 221 toog seen kër yi di ko seetaan tey nag ñu am gan gu mag kenn du ko présenté kooku moom mooy Saaro ñu gën ko xam ci tulu ki nga xam ne moom mooy Alioune Sarr ah, nuyu nañ la. Kiya maa ngi lay nuyu suma rakk ji di nuyu sa team bi nga àndal Diaspora 21 di nuyu Babacar Diaspora maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu Sénégal ñëpp ñi nga xam ne ñoom laa fekk fii. waa tey bu ñu nee Sakho euh, gëm naa ni kenn dootu ko présenté Sénégal yëpp xam nañ ko mais ñu xame la ci nga xam ne moom mooy Gambie. Mm. Ah, muy Gambien ah, tey lan nga xam ni tey moom moo la tax a jógee Gambie ñëw fii nga xam ne moom mooy Sénégal. waaw xam nga boo waxee Sénégal rek ne Gambie boo waxee Gambie ne Sénégal man saay bu ma jógee kanada di ñëw fii laay njëkkee ndax fii tam dama fi am famille. Mm-hmm. xaafan xaaf laa. Mm-hmm. Sénégambien laa soo fii lay njëkkee. nemmeeku suma famille doog a jóge fii dem bi parce que fii mooy Gambie bi mooy Sénégal ñun ñëpp ñoo bokk. waaw mu mel ne ñun ñëpp ñoo bokk comme ni nga ko waxee tey euh, nan nga gisee li nga xam ne moom mooy euh, euh, président Adama Barrow ak ki nga xamoon ni moo fi nekkoon ki nga xam ne moom mooy Yaya jàmme nguur yi tey bu ma nee la kan moo la ci gënal ci ñoom ñaar lan nga may wax. dama lay wax ne la aadama Barrow moo ma gënal. Mm-hmm. parce que aadama Barrow lu bon bon may na réew mi. bi nga xam ne mooy gaam bi may nañu jàmm may na ñëpp jàmm ku nekk libre na pour def li la neex ñi ñaa ngi dund ñi ñaa ngi liggéey gaam bi daal mu ngi foofu ci jàmm. moo tax Adama Baro moo ma gënal te bari naa ci moroom mm. Adama Baro daal moo la gënal. waaw moo ma mm-hmm. gënal. am ni temps amoon na fi coow bu rëy bu amoon entre yow ak ki nga xam ne moom mooy Amzizo tey su ma nee la sa relation ak Amzizo lan nga may tontu. <laughs> <laughs> kii Amzou Sow de ku baax la ni ko uh, di nit ku baax bu ma jógee Canada dem Sweden dama koy fekk Suède ni nga xam ne ñëpp noonu lañ koy fekkee Suède defe naa képp koo xam ne africaine nga boo jógee fii ci réewi Afrique yi dem Suède il faut nga deflanteek am teeg Amzou il faut nga gis ko ndax moo nekk ca réew ma nekk fa moom fa moo tax loolu relation boobu laa am ak moom may jóge Canada di dem Sweden di ko fa fekk te bu ma ko fa fekkee muy nit ku baax coow nag amoon na suma digganteeg moom te ba mu amee dama ko réccu ndax bëgguma coow coow rekk laa ragal mhm. benn yoon boobu laa mos a coow ci sama àddina te dama koy réccu mhm. ba fii ma toog di wax ak yow dama koy réccu maa ekkati sama téléphone baalu ko àq pour ñu amaat jàmm. waaw ba tey bu ñu waxee coow euh, ñu gis ni fan yi aussi amoon na coow lu rëy ju amoon Sénégal. ci mm. diggante ki nga xam ne moom mooy euh, euh, Dabay Baar di jabaru Armand Ndiaye ak ki nga xam ne moom mooy Mbathio Ndiaye. aussi ba tey ñu ñëwaat ci Amzo Zo mu génn ci réseaux sociaux bi commencé nekk fa di wax tey bu ma nee la yow ñu gis ni xaritam nga aussi nan nga gisee li nga xam ne moom moo amoon loolu noonu te ku la xam aussi xam sa diggante ak ak ki nga xam ne mooy Dabay. waa li amoon moom wax dëgganeex yàlla kenn rafetlawu ko mooy bi ma woowatee ci beneen tele rek la ma fa wax. Mm-hmm. ndax lu dul du jàmm a ko gën. te réew mi dafa baax bu coow amee dina tàng lool waaye dañ ciy defaat ndox pour sedd def ci galaas mhm. ñu seddal yëpp mu sedd loolu rek laa ci ah, li fi noonu ba mu amee la ma ca war a def def naa ko wax naa ak ñi ma war a waxal pour jàmm am mhm. te ba jàmm ñëwee it neex na ma parce que kii nga tudd mhm. ah, ki nga xam ne mooy dabaay dëgg la sama doom la di nit ku baax a baax a baax a baax di nit koo xam ne ku am personnalité la koo xam ne liggéey rek la xam ñaq tedd bokkul ci benn détail taxawee ma daw rek nekk ci booram nekkuma ci booram nag pour xeex pour xuloo pour xas kenn pour saaga kenn waaye dama nekk ci booram ndax ragal fee te day xañu wërsëg mhm. te moom suma nit la mhm. da bàyyi dafa mel ni ku ma bokkal ndey ak baay mhm. nu bantewuñu dara umpantewuñu dara loolu rek may ñaawlu tam li fi xewoon di ñaante yàlla bu mu fi amaat waaw tey bu ñu waxee Dabaye dañuy wax ni euh, sa jigéen la comme ni nga ko waxee ñu gis ni ñëpp xam ni danga ko bëgg lool tey sa relation ak Dabaye lu particulier yi bien vrai ni wax nga ci moom mais dañu bëggoon xam tey yaa ak Dabaye nan ngeen xamante ba am relation yu mel nii tey. Dabaye ni ma xamanteeg moom jëkkëram laa xam jëkkëram it yaayam laa xam yaayam présenté ma jëkkëram. jëkkëram nekk ku baax moom tam mu présenté ma Dabaye. ma dem pari laa dem bi ma demee Paris mu paas ma jabaram. bés boobu ba fii may waxee yow nii maak jabaram nii lañ mel. lu muy def bu ñëwee bi bu ma nekkul Gàmbi Wally Seck bi mujj man maa tax ñëwul Gàmbi. daf ma woo ma waroon a ñëw ñëwuma mu ne ma duma ma ñëwati comme nekkuloo bi ndax boo nekkul bi duy neex. mu nekk nit koo xam ne daf ma ciral daf ma fonk daf ma bëgg bëgg sama doom bëgg sama njaboot. xam nga man tam ku ma bëgg rek dama lay bëgg. Mhm. te Dabaye foog naa Sénégal gi yëpp a ko bëgg. Mhm. kilifa yëpp a ko bëgg. Mhm. waaw muy nit ku baax nag vraiment. tey buñ ne Coupe d'Afrique euh, ñu gis ni CAN bi ndeysaan ñu gis ni Gambie aussi bokkoon na yàlla dogal ñu gaaw a génn tey lan ngay wax ci Coupe d'Afrique bi. waaw Coupe d'Afrique bi moom dafa mel ni sax bi génnut dafa mel ni bi mu ngi ci Coupe d'Afrique bi ba léegi. ndax buñ demee ba Sénégal Afrique fierté Afrique na wes Africa. Mhm. gi nga xam ne foofu lañ dëkka mhm. Sénégal def ci liggéey bu rafet te ma bëgg nag sénégalais itam nañuy bàyyi seen joueurs yi bu ñuy jouer ñu du leen di perturber. Mhm. mel ni ñoo nekk ci fil bi di pile nañ bàyyi joueurs yi ñu pile li ñuy pile am nañ jom am nañ fula ndax nañ nekkaloon foofu noonu Cameroun. réewi Afrique yu bari ñoo fa nekk te réewi Afrique yooyu nga xam ne ñoom ñëpp ñibbi nañ defuñu yàlla lu tax ñu ñibbi bàyyi fa sénégalais yi ñu war a dem ba final kon nañ Sénégal yëpp nañ jóg ñu jàppale seen réew te bàyyi xeex bi ci ron chaque chaque année bu Sénégal di jouer di nga gis ñoo xam ne sax daf leen di jaral ñuy génne ay sarax pour Sénégal buñ indi coupe bi ngir lan Macky Sall ngir lan. Euh, bëgguma ñu ne ci jamono Macky Sall la coupe bi ñëw loolu rafetul añaane ba añaane sa bopp moom laa gis Afrique da ngay soxor ba soxor sa bopp coupe bi nga xam ne sénégalais yi ñu ngi try Aliou Cissé bu njëkk dañ daan jël doomi tubaab mu ñëw nekk ki nga xam ne mooy seen kii bi entraîneur bi waaye bii yoon doomi sénégalais doomi africaine lañ indi muy Aliou Cissé mhm. mu nekk ko am jom ku try ba équipe nationale bi dem ba euh, final mhm. kon nañ leen ñaanal rek suba mhm. Sénégal indi coupe bi bu indee coupe bi loolu suñ fierté la fierté Gambie la fierté fii la Sénégal fierté Mali fierté Abidjan ndax Afrique la ñu wax te West Afrique bañ nañ ko ba def ECOWAS pour Afrique yëpp nekk benn kon maa ngi ñaan yàlla ci barke Seex na Seex Saadu bi ma gëm bëgg ko yàlla indi fi nga li nga xam ne mooy coupe bi ñun ñëpp ñu feete ko suba fii ci Sénégal incha allah. tey dama naan sa relation ak ñi nga xam ne moom mooy artistes yi parce que gis nañ ni da nga bëgg Papa Diouf bu baax a baax a baax a baax. Mm. tey ban relation nga ak moom ak yeneen artistes yi nga xam ne tey ñu ngi nekk Sénégal. oh man nag boo may xool nii tey jii man euh, artiste Sénégal yi ñëpp laa bëgg waaye malien yi laay gën a déglu. Mm-hmm. malien wooyi malien. Mm-hmm. ñoom laay gën a déglu foofu laa am léegi artiste bu ma bëgg. Mm-hmm. boo xam ne mu ngi Mali Maramba. Kuku. ma sœur Maram Ba déjà sax la 12 dafa am concert bu mag bëggoon naa caa dem léegi daal ñooñu laay déglu du may déglu benn sénégalais déglootoo benn sénégalais même waaye sax dégluwoo ko dégluwu ma kenn ñëpp xam nañ ma malien yi laa bëgg ñoom laay déglu waaw bu ñu jógee foofu dañuy duggaat fi nga xam ne moom mooy Gambie sa dëkk sa réew ah, ñu dégg ni temps yi da nga am relation bu bu bu particulier encore ak ki nga xam ne moom mooy Fatou Gambien Hmm. journaliste tey su ma doon laaj de sa relation ak moom nan la demee. waa faatu Camara na xam nga man dama amoon problème ak Yaya Jammeh. 2015 mhm. euh, ñu yóbbu ci kaso bi ma am fa un an moom fekk mu ngi fale naka mu ngi dëkk bu ñuy naan Amérique. Mhm. moom tam amoon yi ak Yaya Jammeh problème. dem Amérique. bi mu yëgee ne am naa problème mu lijjanti ma. Mhm. muy nekk Amérique di wax ak ñoo xam ne. ñu ngi ci biir kaso bi muy wax ak ñoom téléphone ñoo xam ne ñu ngi ci biir kaso bi di wax ak ñoom pour xam ci man ci lan laa ne parce que ñëpp dañu waxoon ne dama dee. muy waxanteeg ñoom ci biir kaso bi. jàppale ma utal ma ay avocat indi ma Sénégal ma dem Amérique dem kanada mhm. kon xam nga kooku dafa mel ni koo xam ne yéen a bokk ndey ak baay ndax daf la jàppale. Mhm. loolu mooy suma relation ak moom te bi ma jàppee ba tey bàyyiwuma lu baax lu mu am foog na ne man la ko war a defaral. Mhm. lu baax lu mu xam foog na ne man la ko man maa ko war a am jàppale na ma ci fànn yëpp yëpp ba léegi fii may waxeeg yow. Fatou Camara bàyyiwuma di nit ku baax faatu Show. moom tamit maa ngi koy nuyu le 18 bii sax dafa am programme bu mag boo xam ne daf koy def gaam bii le 18 Heroes Award Youssou Ndour la ci oo maa ko ci ñaanal yal na ko yàlla may ndam. waaw parce que dañu dégg nii problème boobu moo tax nga jógee euh, fi nga xam ne mooy sa dëkk dem Canada toog fa wala dafa am leneen lu tax nga jógee sa dëkk dem Canada dëkk foofu. waa xam nga yàlla moom toujours li may wax rek euh, il foog mu indi métit pour bànneex mun a ñëw. Mm-hmm. te toujours rek dafay baax nga njëkkee ci li nga xam ne mooy métit. Mm-hmm. boo njëkkee ci métit bànneex bi bu ñëwee di nga ko mun a enjoy. Mm-hmm. yàlla def ma doon won boppam ci àddina ndax boobu gaam bi tam neex na torop ma téye ko torop nag ñëpp fonk ma bëgg ma yàlla indi nattu boobu ci man te ba ko yàlla indee nattu boobu daf daf ma dimbale mm-hmm. daf ma ubbil yu bari man mosuma xalaat ci sama àddina dinaa am doom yàlla may na ma doom bu góor xam nga loolu tam fierté la. Mhm, mhm. ci man so loolu daal dama ko sante yàlla bu baax a baax a baax. waaw dañuy ñëw ci doom bu góor boobu noonu parce que temps yële dañu déggoon ni da nga marié. Mhm. Ah, ñu jékki-jékki déggaat ñu ne da nga divorcé dañu bëggoon xam marié wala célibataire parce que nit ñi ñu ngi laam-laamee loolu. <laughs> <laughs> man nag ñaareel du may bëgg faral di wax suma vie privée. Mhm. Mhm. waaye tey moom dama bëgg pour wax ci loolu sax ndax d'ailleurs sonn naa trop pour ma mun a am jàmm. Mhm. parce que kooku kenn forcé wu ma ko woon pour ma takk ko. man maa ko gisoon ma takk ko. comprendre bi ma ko gisee nag takk ko ma xam ne moom yàlla boolewuñu daal. du koo xam ne war naa. suñ sëy bi dina dem mm-hmm. yàlla tam jeexal ko fa ba ko yàlla jeexalee nag wax ji bari na torop torop lu nekk dégg naa ko waaye xam nga Afrique lañ mm-hmm. nekk ma ne ko Afrique lañ nekk ci jamono gi nekk ni jamono yaaxante la jamono waxante yu ñaaw waaye tas naa ak kooku mm-hmm. léegi célibataire sax naka nga ko waaye célibataire célibataire bu mag laa kon daal xale yi nga xam ne am nañ sa coppati mën nañoo ñëw nañ ñëw <laughs> dèjà sax damay takk. ah da ngay takkaat jabar damay takkaat jabar. ah loolu dafa mel ni exclusivité la. jox naa la exclusivité. <laughs> tey bu ñu nee la nga tàggatoo ak euh, euh, nu tuuti téléspectateur internet yi nga xam ne ñoo ngi toog di ñu seetaan. xanaa kontaan ci déplacement bi ngeen def. Mhm. kontaan ci ki nga xam ne mooy Babs. Mhm. Babs dama jóge ba Canada jamono moo géet mhm. dem ba Atlanta fekki leen fa. ba ma demee. mu nekk nit ku baax mook ñoom Awa Balde ak moo géet moo géet tam nekk nit ku baax moo géet mayuma dara de waaye dafa am respect boo demee foofu babs mu ngi babs dañ dem foofu moo géet ci néeg bi lay ñëw ñoom jolleek ñëpp ñun ñëpp ñooy nekk ci benn néeg bi di ambiance xam nga loolu nit ku baax moo ko mun nit ku oyof la maa ngi koy ñaanal moom tamit di ñaanal sénégalais yëpp bëgguma lim ndax ku lim juum waaye gërëm naa sénégalais yëpp ndax sénégalais yi dañ baax waaye nag kenn rek laa ci cité ba ñaar muy ajaratu Nafisatu Diop Cissé mhm. notaire ak maître joor Diagne mhm. maa ngi leen di def coucou mhm. waaw kon ñu ngi lay jaajëfal allez merci beaucoup amis chers téléspectateurs de Diaspora 221 ñu leen di jox dig daje ci beneen numéro incha allah merci